àdduna jeena baneex ba jeena dëddu ko jot ngir Bàmba dem na asalaamaaleykum bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki lislaam yi ñoo ngi leen bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant nag waajur waaye di sant Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul dañ sant bu baax it nag Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim sunu sang ba yàlla yàlla fayal ko lu tax loolu tey noo ngi toog fii ci Màkka Brage yi ceet ban xanaa atub Serigne Jili Mbacke moom Serigne Mbacke Madina moom Cheikh Moustapha al Karim moom Serigne tuba Khadim Rasoul moo ànd ak kan doomam ja xaritam ba soppeem bëgg ko ko wóor loolu mu bëgg ko. Serigne Khadim Mbacké ibnu Serigne Mbacké soxna loo ibnu Serigne Cheikh Mbacké gaynde Fatma ibnu Cheikh Moustapha al Karim moom Serigne Touba Khadimu Rasul bokki jullit yi bokki taalibe yi waaye tooyaay bi tey bii nag kan moo ko lan moo ko waral mooy jëf ju rëy joo xam ne si Cheikh Moustapha moo ñu ko liggéeyaloon ci Serigne Bamba mooy lan bis bi nga xamee ni nag ci la Serigne Touba wàcce liggéey ci njaareem Cheikh Moustapha jëlee ko jaareem boole kook rakam ju baax Cheikh Mouhamadul Bachiru mu andil ko ko Touba fa tabarakallah mu liggéey liggéey bu rëy bu rafet boobee. tax nag bu jubee ñu am ndigal loo xam ne si dafay tukkee Serigne Mountakha Mbacké ibnu Serigne Bachiru xalifatu général kul murid. suñu jotaay bi ñi ngeen di gis nag ko gisee am lu ko waral mooy téeméer at yi nga xam ne nii moom lu ñuy fàttaliku suñu jàmbaar bi suñu yaakaar tey ëllëg muy Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul loolu nag jàpp ci weeru hijriya ñu weeru islam ñu am ci waajtaay boo xam ne nii dañ koy laytaaye bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku bis boobu waa Louga nag am ci ab cër bu mag a mag ndax ku wax Cheikh Mbaba Xaadimu Rasuul wax Cheikh Mawlana Moustapha wax ñëpp ah dëgg yàlla ñëw ci seen cosaan ci Louga kon ñoom ñaar ñaari bi ñaari kilifa yooyu nga xam ni ñoo ñëw seq Daaru Xuddoos biir nii ak ñëpp ñi nga xam ne lim nañ leen léegi ñu nekk ci diwaanu njàmbur ba Ndar ba Kébémer ba Linguère ñun ñooy taxaw bis bi ñuy waaj ñu ko taxaw incha allah le altine fii ci kër Mouhamad euh, Diattara pare Baye Djily Mbaye mi ngi mi ngi doon altine le 15 juillet ñu ngi koy defee kër Mouhamad gannaaw bu da maanaam à partir de 3 heures ñu ñu ñuy woo le di woo le maire les maire sax laay wax les maires yi nga xam ne ñoo nekk ci goxu Louga. ak li ko wër goxu ndar ak li ko wër di woo autorité yi nekk yi nekk ci dëkk bi yëpp ñoo ngi leen di convier ci bis boobu nga xam ni bis bu rëy la kon sëñ Karim dafa wax ne képp koo xam ne yaa nga wooyee ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu muy kilifa diine nga muy kilifa aada nga muy ab taalibe nga muy ab wëllënge nga muy ab xareen nga muy ab soppe nga bis boobu nag ñëpp bokk waajal incha allah altine bii ñu jëm ci kër Mohamed nee na nag rawatina njabootu sëriñ Baara gii xam ne dañoo bokk ak moom sëriñ moom leen Baara Mbàkke ci ndigalu ki nga xam ne moom sëñ Moustapha di xalifa bi ñu koy soññee ndax gis ngeen ne màggal kat ren ji am na changement ndax rakkam sëriñ Cheikh Mbàkke moom Cheikh Abdou Aziz ñi nga xam ne mu ñu jàpp ci bis bi jiitu ci bis bi da cee bokk yaatal na ko lool kon Cheikh bi Karim kat nee na fii ci njàmbur loolu rek moo tax kàddu gi waaye kàddu gi muy kàddu sëñ Moustapha rek kàddu gi muy kàddu sëriñ Baara muy kàddu jullit yëpp. mboolem daayira yoo xam daayira yoo ci biir Louga ñu ngi seet ñu ngi ñu ngi séentu daayira yëpp ak seen i digisement ak seen i mbooloo ñu ñëw teew daayira bu nekk nga xam ni am na ak ràññee am nañ ak ràññee ci yow te ñëpp ñu ngi ñu ngi leen ciy ñu xam ne woote bi woote sëñ Tuubaa la ku ci wusi rek sëñ Muntaxa nga wusi lu ci waay defit si mun taxaa nga ko defal akana waxtan yu wi ko ci def julit bu nek man na jarignu moy ben julit ñep mu ñëpp ñu waxdatul muslimina mooy benn tam bi nga xamni señ sa sëñ mom señ bas sëñ Jang mom mo koy def kon mom señ cheikh kero mom mo koy def moy def ben waxtan bi ben bi ci dess moy kasbul halal di fàgg lew lol timit yakarna julit ñep julit ñep julit bu ne man na cee di woo nag sama mbokk jigéen ñi laay woo maa ngi wax sama ñëpp fu ñu mën a nekk rek nag dig sama kàddu maa ngi leen di woo mboolem daayira yi di jiital daayira Touba ci kanam nga xam ne moo ëmb mboolem suñ mboolem ëmb liggéey sëñ Touba yi waa Touba ci kanam ñu ngi leen woo ak li wër Louga di woo waa daayira maam jaare bu sëy Louga yi wër Louga lépp nag boobu ñu kenn ndax lépp lu ñu woote rek jigéen moom kenn mënu ko jël daayira boobu mën a fekk rek jigéen ñi ngay fekk lu ñu ëpp te bu ñu jigéen ñi ay ba ñu woo suñu mbokki jigéen ñëpp ñëpp bawuñu kenn waaye walaay yéen ko bokkal ñun waaye ko bokk waa suñu waa suñu Aliou yëpp ñoo ko bokk kon nag ñu woo jigéen ñëpp bawuñu kenn képp ku dikk suñ kàddu daal ñu ngi lay woo te buñ la woo it nag ñu ngi ñëw ci teel. woote bi ñu woote. ci ñu woote. tax tax buntu kër Cheikh Moustapha yëpp daje fi. fii ci moom. gën koo yaatal si jullit yëpp sax. nee gën koo yaatal sax ci jullit yëpp sax. ndax bis bi ñuy dëgmal. ndax bis bii ñu dëgmal. dañ koy lay taay lay taay eh, gi ñu jëm mu ngi si lu mu xaram. dañ koy lay taayale bis bii ñu jëm muy ay si mu xaram. woon nag dayo bii mu am tey. daa amul woon nag dayo bii mu am tey jii. ndax dafa waxoon ne fu waay nekk rek. ndax dafa waxoon rek fu waay nekk rek. na nga ko fa màggale na nga ko fa màggale màggal googu nag ute naag màggal gii màggal googa nag ute naag màggal gii ñu tuddee Ishrina Muharram wii ñu tuddee Ishrina Muharram te moom laa gën a jàpp moom te nee na moom la gën a jàpp moom ndax du màggalu Daaru Xuddoos ndax du màggalu Daaru Xuddoos màggalu jullit yëpp la màggalu jullit yëpp la euh, yool bi sëñ bi mag bi euh, digle woon yool bi ci sëñ bu mag bi digle woon ba wax ni ku si fanaan ba wax ne ku ci fanaan. sa yaram araam na safara. sa yaram araam na loolu la Cheikh Moustapha yéene jullit yëpp. loolu la Cheikh Mouhamadou Moustapha yéene jullit yëpp. ba tax mu ne. ba tax mu ne. koo xam ni amoo lu dul ñaari mbubb sax. koo xam ni amoo sax lu dul ñaari mbubb. sa sa amoo paas. te amoo paas. na jaay menn ma. na jaay menn ma. Euh, paase ko ñëw. paase ko ñëw. ku am ku dend ak sa sa moromu moo xam ni naka yow. moo xam ne naka yow. dafa amul paas. dafa amul paas. te yow nga tane ko. te nga tane ko. nga dimbali ko mu mu ñëw. nga dimbali ko yow mu ñëw. ndax moom ruu rek la soxla. ndax nee na yii moom la soxla. ruu yi la soxla ruu yi la soxla. bis boobee. te te loolee eh, taalib yëpp maanaam jullit yëpp la ko yéene. te loolu maanaam jullit yëpp la ko yéene. moo tax muy woote ci bis bi. ndax muy woote ci bis bi. ba sëñ sëñ sëñ Muntaxa moom it am ci taxawaay bu a na Cheikh Mor na gën a yàgg bu mat sëkk. fête li ko ren jii. fête li ko ren jii. ba def ci jëf ji mu fi jëf. ba jëf ci jëf ji mu fi jëf. xam wax ni lépp lu xew ci buntu Cheikh Moustapha. day wax ne lépp lu fi ci moo ci sunu kilifa. moom moo ci sunu kilifa. bu gënee yaatu nag. bu gënee yaatu nag. ba làmb murid yëpp. booy bu murid yëpp. Euh, cër bi nga koy si si Mouhamadou. bi dañ koy delloo ci sëñ Mouhamadou. ndax moo moo fi sëñ sëñ Tuubaa. ndax moo fi sëñ Tuubaa. wasalaamaaleykum wasalaamaaleykum. jërëjëf jërëjëf. defar sa jàkka tey